COP 28 bi ñu amaloon d' abord dañu jàpp ni euh, COP bu amoon solo la fi nga koy jàppee rek mooy ci lim bi fa dem euh, guleet euh, àdduna bi bu day nii dem ci benn COP bi COP yi di am ba léegi waaye itam question yi fa amoon solo lool nga xam ne première fois ñu doon def li ñuy wax le bilan mondial donc scientifique yi ñëw wax ñu exactement fa ñu toll euh, tey ñu amoon décision euh, en tout cas euh, ñu ñëpp ñu manqué woon ni lépp lu ñu fay dogal na lalu ci li science wax te nag ñenn ci loolu lañu jàppoon ne par exemple waruñu génn ci COP 28 te àdduna bi manqué ne lépp luy énergie fossile maanaam xeetu pétrole wala gaz wala charbon yooyu Euh, dañ koy dakkal léegi ci adduna bi waaw yow mi sénégalaise nag coow li nga fi dégg yëpp ci wàllu gaz ak pétrole euh, bu ñu génnoon ci ko boobu ñu ne gaz boobu ñuy wax ñun amatuñu euh, sañ-sañ di ko di ko di ko jëfandikoo xam nga ni ay jafe-jafe lay am parce que ñële xëy na ñoom am na lu ñu régleel seen askan ba pare ci wàllu développement ci wàllu accès universel li ñu naan les accès universels mais fii ci Afrique te ñun dañ doon wax ci turu Sénégal waaye di wax ci turu l'ensemble des pays les moins avancé parce que ñoo yoroon seen kaddu ci yenn yenn négociations yi euh, sama collègue Madeleine Sarr moo doon jiite euh, experts yi doon négocier loolu euh, donc ñun xam ngeen ne loolu buñ ko dag buñ ko dogaloon ci COP 28 bi mooy obligé nañu yeew nañ suñu loxo ne leen léegi da ngeen di tànn défendre climat bi waaye seen développement moom da ngeen da ngeen koy fàtte loolu xam nga yenwul maana itam comme ni ko président la république di wax ñu koy gërëm bu baax di ko jaajëfal ci taxawaay bi mu fa am ci ay naataangoom mu am muy taxawaay en tout cas au niveau diplomatique bu bu am solo muy kàddu bu porté woon parce que dafa wax ni ñi di ko dégg li nga xam ne loolu Afrique mënu ko mën mënu ko bàyyi euh, gàllankoor yi nga xam ne tey ñoo téye développement Afrique li nga xam ne léegi tey war nañ ko teggi bu ñu bëggee quand même ñëpp avancer ndoo ensemble Euh, mu doon un plaidoyer très fort ci ay questions yu simple ci financement climat bi ci ci lépp lu ñuy def tey li nga xam ne tey euh, organisation banque multilatérale yi parce que dañ fa opérationaliser le fonds des pertes et dommages mu doon xeex boo xam ne dañ ko amoon depuis Sharm el Sheikh bi ñuy dem Sharm el Sheikh bokkuloon sax ci agenda bi ci ci lobbying lañ fa def ba loolu mën a dugg ci agenda bi finalement consensus moo doon nañ ko léegi dàq ba COP 28 pour ñu opérationnaliser ko waaye ci at bi nañu euh, jël benn ay comité ñu liggéey ci nga xam ne bu ñëwee COP 28 ñu opérationnalisé COP 28 daa ubbee ci loolu ci opérationnalisé loolu tout de suite ñu am ay annonce claire de financement gulet muy am ci benn COP ay annonce claire ni voilà ñu tàmbale premier jour bi ay deux cent millions de dollars mais bi ñu fay génn ñu ngi huit cent millions de dollars pour ce fonds là euh, lu tax ma indi fonds boobu parce que fonds boobu ci li ñu juboogum de façon transitoire mooy banque mondiale fa lañ koy loger te xam ngeen les dispositions de la banque mondiale ci wàllu accès fonds boobu lu waral ñu créer ko mooy dafa war a réactif parce que boo amee inondation wala nga am typhon wala yooyu mënoo toog deux ans ci ay procédure donc dafa fonds bu disponible accessible euh, la ñu bëgg avec des donc de règles de gestion yu gën a souple donc loolu euh, foofu lañ ko donc président yooyu ces institutions multilatérales là euh, notamment depuis Bretton Woods dafa yàgg di ko dénoncer di wax ni tey dafa jot ñu soppi ko kon COP boobu lu am solo la ci pàcc boo jël euh, parce que ay négociation ay évolution la jàpp naa ni boo xoolee loolu rek ñu génn ci loolu ne tey euh, mënatuñu wax ni dañuy génn léegi léegi léegi léegi ci énergie fossile mais ñun ñëpp dañuy manqué ni dañu am trajectoire boo xam nañ dañ ciy génn loolu ñëpp mën nañ ci mooy consensus bi ñu am kon Sénégal dana inscrire dans le temps euh, ci stratégie bi mu bëggoon pour utiliser son gaz gaz bi au niveau domestique ak li muy exporté waaye inscrire ko dans le temps fii ak deux mille trente deux euh, pour ñu xool parce que jàpp nañ ni fii ak deux mille cinquante science bi dana am évolution boo xam ne euh, xëy na euh, danañ am ay sources wala ay possibilités xam ne c'est beaucoup moins cher gën a méngoo méngoog lii environnement laaj.